maa ngi jàngi groupe australien fonction yi Mbacke. Mhm. monsieur bi foofu. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax nag waaw. waaw tey euh, ñu seetlu woon lañ bëggoon leen laaj euh, par rapport ak ñi nga xam ne mooy BFM bi tey ñu gis leen euh, ku xool xam ne instant yi deneen stressé woon yooyu noonu ba yëg-yëg ngeen am par rapport ak yooyu noonu ci BFM bi. kay sonn nan kay sonn nan moom soo gisee jigéen ñi rek gis nañ tooyee nii rek gar ku nekk nii. wane yenn kanam yi rek nga xam ne moom sonn nañ trop waaw. Mhm. ñun nag moom ñoo ngi sant yàlla ba di xaar rek. Mhm. yàlla moom lu mu def moo gën quoi waaw. attentivement. nous allons vous donner la liste des candidats admis au premier tour par ordre de mérite. Pour faire le second tour, on vous demande de se coller à l'information d'écouter la date de programmation du second tour. Parce que c'est une date sera encore donnée par le ministère de l'Éducation nationale, donc il faut écouter au niveau de la presse, lire les réseaux sociaux, certainement vous serez informés à temps, n'est-ce pas Donc, je m'en vais vous lire pour le centre de l'école élémentaire Argor Diouf, section moderne.

29 soxna Aïssata CP Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 84 Fati Amar Maodo Mayane de Diourbel numéro 32 Aïda Diop Maodo Mayane de Diourbel numéro 30 Mame Thierno Dieng candidat libre numéro 30 Yan Aïssa Diop numéro 26 Daba Siley Diallo numéro 74 de Sougou institution du Hayaat de Diourbel numéro 111 Bado Fall complexe scolaire Excellence Al Amine numéro 51 Soxna Fatou Taï CP Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 80 Magal Wagne CP numéro 9 dafa tiitoon man moo nekkoon ndax man moom loo nekkoon dafa tiitoon trop numéro 17 Diada Ba candidat liste numéro 71 Mohamed Sène DG Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 50 Abi Anne CP Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 25 Aïssatou Toupé Diallo candidat liste numéro 94 Adja Mba Selim Coulibaly DP Serigne Fallou Mbacké. Je reprends encore. Numéro 94. Adja Mba Teni Koulibaly. DP Serigne Fallou Mbacké. Numéro 46. Marie Faye. Candidat liste. Numéro 108. Penda Adama Diouf. CP Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 62 Thioro Ndiaye CP Serigne Souhaïbou numéro 91 Penda Ba CP Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 14 numéro 14 Yaye Aïcha Ndiaye 5 Khadijatou Soumaoro candidat numéro 73 Fatou Bintou Sène MPP Ismaïbou Mbacké numéro 164 Diarra Tall 167 je répète numéro 167 Diarra Cheikh Diagne candidat liste numéro 65 Papa Ali Sall numéro 85 Khady Anne numéro 144 Modou Ndiaye dalili élève Mame Fama Dia CP Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 128 Astou Gueye Keita CP Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 137 Diouma Ndao de Diourbel soixante-dix Khadijatou Thiandoum

Daara Diallo DP Serigne Touba Mbacké numéro 42 Mohamed Fall inscription carte d'identité numéro 78 Aïssatou Wade inscription carte d'identité numéro 47 Aïda Diouf Gaye candidat libre numéro 64 jàll. DP Serigne Souhaïbou Mbacké. numéro 76. Rokhaya Tine. DP Serigne Souhaïbou Mbacké. numéro 171. Mamadou Sowane. DP Serigne Souhaïbou Mbacké. numéro 19. Ndiaye Bey. candidat libre. numéro 23. Koumba Numéro 11, Papa Maslam. Numéro 36, Amdiara Diouf. Numéro 81, candidat Numéro 95, Fatoumata Fante Fifi Dembélé CP Serigne Souaïbou Mbacké numéro 139 Adji Muslim Ndiaye CP complexe scolaire excellence Al Amin numéro 18 Mariama Sireba CP complexe scolaire excellence Al Amin numéro 21 Khady Koumba Diaw CP Serigne Souaïbou Mbacké numéro 41 Fatou Koumbé Fall CP Serigne Souaïbou Mbacké numéro 72 Serigne Fallou Sène CP Serigne Souaïbou Mbacké numéro 99 Ndeye Astou Diagne candidat numéro 48 Babacar Gueye complexe scolaire excellence Al Amine numéro 106 Bassirou Diouf candidat libre numéro 12 Mame Ndiaye Ndiaye CP Serigne Souaïbou Mbacké numéro 70 Gaye Sène CP Serigne Souaïbou Mbacké numéro 7 Ndiaye Fall CP Serigne Souaïbou Mbacké numéro 37 Fatou Diouf CP Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 125 Ndiouge Gueye Ndiouk Gueye CP Serigne Souhaïbou Mbacké CT Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 107 Koumbi MS Diouf CT Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 124 Ndiolé Gueye CT Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 140 Astou Ndiaye institut Maodo Hayaat de Diourbel numéro 169 Fallou Thiam CP Serigne Souaïbou Mbacké numéro 160 Mame Diarra Sène CP Serigne Souaïbou Mbacké numéro 2 Amit Baw Institut Maodo Fayat de Diourbel numéro 130 Ndamalo candidat libre 159 Soxna Fall CP Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 44 Ben Fall CP Serigne Souhaïbou Mbacké numéro 68 Astou Seck numéro 141 Ibrahima Oumar Ndiaye CP Serigne Saliou Mbacké numéro 152 numéro 152 Fatou Ngom CP Serigne Saliou Mbacké numéro 67 Baye Abdou Dieng CP Serigne Saliou Mbacké numéro 29 El Hadji Abdoul Aziz Diallo CP Serigne Saliou Mbacké numéro 66 Awa Sarr CP Serigne Souhaïbou Mbacké Thank you. Hasan Mbaye mën na yokk bu waaj bi Thank you. Papi. quand on euh, niveau des résultats, les élèves qui ont amené Voilà, au niveau du centre élémentaire, école élémentaire Algourdjoum, euh, nous avions nombre d'inscrits, sur ces 171-là, qui ont composé. Sur les au premier groupe, c'est-à-dire ceux qui ont admis d'office, nous avons 47